maa ngi leen di ziar eh, la bàyyi nga présenté nga wax ñu mooy sa teewaay tey. man la Gaynde Mati euh, mooy euh, soutenir suñu confrère Baye Diakhaté li nga xam ne ñoo bokk combat bi bokk Sénégal bokk APR bokk Benno Bokk Yaakaar mu nekk jàmbaar. ku nekk ku diiñ ku am fulla ku am fayda kuy wax ci dëgg kuy preuve koo xam ne faratuwul ay waxam boobu buñ ko arrêté dañu ñëw soutenir ndax ñun ay ndaw lañ ñoo xam ne dañoo bëgg parti bi ñu fekkante ci parti bi mu nekk koo xam ne ku diiñ la bàyyi du wax lu ñu koy xeebee bàyyi du wax lu dul dëgg lu mu wax rek am na ci preuve comme nag mu ngi ci biir nañu xaar gars yi def seen liggéey mais nag ñun li ñu war ñu ànd ak moom buy fanaan ñu fanaan buy yendu ñu yendu buy dem ñu ànd ak ba fu mu yem rek mu neex. incha bu baax a baax parce que preuve yi ko laaj teg na ko ci table bi bu baax a baax dina fa naan ci preuve tey incha allah bu rafet. ñaan nañu ko yàlla loolu mais eh, bu ñu ko bu ñu ba yóbbu ko ndax am na ay jéego euh, a baax bu ñu ko yóbbee tamit dinañ ko taxaw soutenir ko ci discipline ci yar ci tey ci xam fu ñuy teg suñuy tànk duñ wax daray ñàkk fayda duñu dox daray ñàkk fayda arrêté nañ ko yàlla buñ ko defee bu amee tamit dinañ ci taxaw taxawaay bu gën a dëgër nga xam ne soxla nañ suñu frère ñu ñëw delluwaat ci njabootam incha allahu rabbi te ñaanuñu ko yàlla ñu ngi ñaan tey tey tey dañ ko libéré wala sinon fii dina tàng rek